صلى الله وسلم على الفاتح الخاتم سيدنا محمد الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بوكي jullit yu nek ci gox yu fasantikoo yi ci rew mi ak ci bitim rew tan leer ak jamono di ko leerloo muy radio television bu wal fajri fu ngeen mun di nek ci aduna bi rek maa ngi leen di boole juróomi baat yi ñu yalla boole mu gëna tedd gëna sel gëna sakkan doy walis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 ko jubale ci wàllu tabaski ndax jamono ji ñu toll li ci borom kër yi benn soxla dong lañ xam mooy soxla tabaski ca dëppoo mu door a mën a wér sarta ya dafay nekk ci aji tabaski ji am na ci yoo xam ne dafa nekk ca aji tabaski ji am ci yoo xam ne dafa nekk ca la muy tabaskiyee am yoo xam ne dafa nekk ca nam koy tabaskiyee am ci yoo xam ne dafay nekk ca jamono jam koy tabaskiyee soo ma toppee nag danaa la farañ fànceer ñeent yooyu ma wax la charte bu njëkk bi mooy aji tabaski ji d'abord na nekk jullit bu nekkee ab yéeféer wala muy kitaabi yu ci njaboot ak yonent yàlla Muusa wala yonent yàlla Isa ñu leen di wax ñi ay yahud ñu leen di wax ay nasaraan su boobaa du mën a wér ci shariatul islaamiya sarta ba daal na nekk ab julit ñaareel ba moom julit booba bu demee bay tabaski xale la mag la góor la jigéen la masoor na masooragut na ko yéene ca xol ba jamono jamuy rendi tabaski ma mbaa ñi ko koy rendil fekkee mooy rendi na koy yéene teg paaka ba ne bismillaahi allahu akbar su fekkee dañ ko koy rendil nga jël loxoom ndeyjooram ba teg ko ca loxoom kay rendi mu mel ni ma koy dimbale ca rendi ga kooku la yonent bi di wax ne innamal amalu binniyaati wa innama li kulli mri'in ma nawa jëf yëpp mi ngi aju ci yéene ja nit ku nekk la nga yéene ci sa jëf rekk moom nga cay xam moo tax xalil mu mën a jàngale te mën a compliquer ca njàngale ma mu ne su fekkoon ne nga am tabaski sa xarit mbaa sa mbokk amam tabaski ngay reen di sa tabaski mi jaawale kook mosam ma mu ne su boobaa du la doy ndax su boobaa yéene ji nga yéene dëppoowut ak sa xar mi moom tamit du ko doy ndax maanaam jëf ji dëppoowut ak yéeneem ja yooyu yëpp xalil mi ngay posé question booba nga xam ne kon li muy tekki mooy euh, maanaam yéene ja te mu dëppoog sa bos ba am na ca solo yéene ja nag mën naa tàbbi ca fa ngay jëndee xarma rek yéene ja tabaski yéene ja mën naa tàbbi ba nga demee bay reen di xarma yooyu yëpp boo ci yéenee baax na bu la neexee ba nga ne yéene naa ca tabaski te jënd ga ba nga demee bay rendi nga mana yéene ja tamit mu gën a baaxati mu mel ni weeru koor bu ñëwee weer rek nga yéene benn yoon mën naa yóbbaale weer wi yëpp yaa koy toftale amuloo ngant bu ko dogale waaye sopp nañ waxtu wu ne bët bu set rek nga sa yéene ja sartam ñaareel ba la ngay tabaskee na fekk muy lu ñu war na nekk xar Soko amul nga wut soko soko amul nga wut soko soko amul nga door wut gëlem kar lañ bëgg mom la yonent bi tabaske woon bu ci tegu moy bay ndax baye gëna gën a niru xar ci nak mom lañ bëgg nga tofal ko ca boko nga wut andi nak naga gëna a niru gelem ci xar gelema mujj mo gëna a niru hadi ci mbolem juri kër yi ci xar motax mo mujj moo tax buy ci wàllu hadaaya ya na yàpp wa gën a bëree gën a baax ndax fuqaraaw ya ak masaakin ya muy ñëwee hadiyu ca Makka waaye buy ci tabaski nag xar lañ gën a bëgg ndax moom la yonent bi defoon su ko defee kon ya ñuy na fekk muy kenn ci ñeent yi xar wala bëy walla nag wala gëléem kon boo tabaskee woon muy bodom wéerut boo tabaskee woon diggante doomu xar ak doomu kéwél wérut moom daal xar rek lay mën a doon wala muy bëy rek wala muy nag rek wala muy gëléem rek kenn ci ñeent yi waaye boo ko defoon ab kéwél wala nga tabaskee am sikóor wala nga tabaskee benn bar wala nga tabaskee maanaam benn mbëtt yooyu yëpp taxut mu mat tabaski loola mooy bu mazhabu Malik mazahib yu bari tamit loolu lañ tegtalu ñu néew ñoo jël xadiisu bilaal bi ne laa ubaali in daxaytu bi dakiikin muy hadis boo xam ne Saïd man Mansour moo ko génnee ñenn ña tegtaloo ci rek kon ne ko tabaski doon la woon ganaar la wér na te waxoon naa la ko démb junj la ko waaye loolu nga ca d'accord bëriwut kon wax naa la ñaareelu sarta ba ñetteelu sarta ba gannaaw ba kay tabaski nekkee ka war tabaski ci njulit gi nekk ko war a tabaski ca yéene la muy tabaskee nekk lu ñu war a tabaskee ci xar wala ci bëy wala ci nag wala ci gëléem waaye waaye tamit na nekk gàtt boo xam ne dafa mucc ci mbooleem xeeti ayib yi bu mucc ci min kulli aybin yanqusul laxma awi saxma na nekk gàtt boo xam ne mucc na ci ayib buy wàññi yàpp wa wala gerees ga boo jëlee xadiisu baraab nu aasib ñeenti ayib la yonent bi lim ne gàtt bu mu ne kenn du ko tabaskee bi ci njëkk gàtt boo xam ne dafa patt wala jëmmi bët ba mag ne ñum waay gisatut kooku mooy al awra al bayinu awra kooka kenn du ko tabaskee ñaareel ba mooy bu feebar feebar boo xam ne ma nga cuggaaral feeñ ca yaram wa karaw ga siiñ al maridatul bayinu maraduha kenn du ko tabaskee beneen ba mooy buy soox ba nga yëg ko ca tànk kanam ba mbaa gannaaw ga wala ku mu ci ñaar ya kenn du ko tabaskee mooy al arjaau al bayinu daloha eh, beneen ba nag mooy al kasiratu mooy boo xam ne dafa damm tànk ba damm wala yaxu di gannaaw ba dammoog yu mel noona yooya yëpp benn mën ju ci tabaski kon ñeenti ayib yi la yonantu bi lim ci hadis bi ne yonantu bee waxoon ne arbaun laa yu gisi na fil adaahi yi al awraa'ul bayyinu awruhaa wal maridatul bayyinu maraduhaa wal arjaa'ul bayyinu dal'uhaa wal kasiratu lati laa tanqi kooku xadis la Malik tamit génne na ko muy xadis boo xam ne bu wér la yi ayib gàtt bum mu nekk kenn du ko tabaskee yéen yi ca des nag loo déggatulul ñeent yi rek dañ caa wutee ñi ne man na ñële tamit ne mënut su ko defee kon su fekkee dafa am ayib ayib nak su fekke dafa nek ci gannaaw bi nga jënde dang koy jënd dal ben ayib nekut ci yalla dogal mu ñew commencé di mbeukante be jën ya damu di nacc wala muy mbeukante tank ya damm wala beut ba ci bopam fukk wala yu beut ba dem waye jamono jëng koy jënd mom ben ayib nekut ci woon su ko sa loxo jotté sa gannaaw sansé ko nga xut bu amut lola bu sa loxo juxut sa gannaaw bi rek mo fi seuss mën nga ko tabaskee ndax da ngaa loru te addaruuraat tubiixul maxzuuraat moo tax dana bokk ci fasaa ilimaan yi nañuy joxe gàtt mat tabaski ñu teel ko wax lool balaa ña di déglu jëndam seenam xar wala seenam bëy xeew ko di xaar ilimaan xutba ga jeex rek ñu dem rend ji nga toog fa nag gaa yow la ñuy xaar nga toog fee nekk naan door a commencé ne gàtt buy soox mënut bu béjjën ba damm mënut te waa ji moom yow rek lay xaar nga mu dem rendi la lamuy hut amna ko ba hut nako ba pare kon nang ko koy teel wax bala wut su ko defee moy gën lola bokku na ci ak fasaha waye tay xutba yu bari di yàggal julli gi moy lañuy wax lepp lu passé la ndax yow fu mu ne nii passé na tok ba ki bi nek nga door commencé di wax na na gatt ba wara mel dañuy fi gis kenn ngir pare dem di jëndi ndax la jënd gën nañ ko ba ko lola lepp day guddal xutba gi rek matu yow kay waxal gàtt bii buñ ko rendee luñ cay def luñ ko war a séddalee ca dëkkandoor ya ca mbokk ya luñ cay war a saraxee te way néew doole ya luñ war a baxalante ak yoon wa ñuy war a jaar na wuuteeg wañ jaaroon nañ jéggalante nañ bëri kàbbaar ci fan yi yooyaa ci xam solo ndax kooku mooy képp ko muxtadaaxaal waaye mbiram gàtt baag nii lay war a mel moom matatu ko ndax gaa yi moom jënd nañ ba pare yow rek lañuy xaar nga noppi ñu dem reendi ji ko su ko defee nag da nga ci gis koo xam ne xut ba gën a gudd lool ma ko doon doonee woon ca baayam mu doon nee ko ca maamam mu ñëw liir ko mu yàgg lool la doon jamonoy baay ja ak jamonoy maam ja duhut jamonom muy wax lu passé nit ñi yàkkamti lool balaa pare ñëpp a ngay ciipatu seen i limaan ja ngir mere ko te la muy wax lu ca bay dégguñ ca dara mu nekk ca di tekki tarbaat di tekki yoonu da jël temps bu gudd boo xam ne laajatul ko ndax daal xayrul kalaami maa qalla wa dalla la xukamaaw yi wax gën ci wax daal mooy nag gàtt te tegtale waaye bu guddee doon ci tegtal na jëriñu tut waaye naka noonu tamit bu guddee te tegtalewut moom waxi nopp bu gàttee te tegtalewut waxi nopp kon nag gàtt te tegtale rek nit ñi mën dem jëriñoo ko su ko defee sartu ñeenteel bi booy loj sa haddiyu mi le buy gëléem wala nga koy rendi buy xar wala bëy na nekk ca bis bu njëkk ba ndem am nga ko wala ñaari bis ya ko méng la Abu Hanifa gëm loolu la imaam Ahmad tamit gëm Shaafi'i moom mu ne dagan na ba ca bisam ñeenteel ba waaye du du ngiram de du su ngir de Maalik tamit dafa ne bisam ñetteel ba rek tabaski ak ñaari fan ya ca tegu waaye mennam Shaafi'i mu ne tabaski ak ñetti fan ya ca tegu kon moom loolu la gëm da caa dugalaale ayaamu tashriq moom looloo tax moom mu duggal ko ca su ko defé kon nak ayamu tashriq moy ñaarelu fan ba ak ñettel ba ak ñentel ba ci bisu ba kon lolu kon motax li di kiri maxdudaat ki di ayamul ma'lumat juromeli sarta ba mooy loj wala rendi ga bu dee gëlëm ñiy loj bu dee ngay rendi ma ngay loj bu xar wala muy bay ngay rendi na fekk gannaaw bi ilimaan rendé ba pare waye ku ñëk rendi sa liman yàpp nga am waaye amuloo tabaski fa man dabaha aw naxara qabla salaatil iidi fa huwa laxmu fa huwa laxmun su fekkee nag da rendi yow sax waxtu may limaam waaye julli jeeguñ sax julleeguñ sax nga far rendi wala nga loj yow daal am nga yàpp loo tëralee sa njaboot waaye amoo tabaski moo tax bara daan wax ne xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yowmal adduha baada salaati fa qaala man salla salaatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla salati fa tilka lahmin akhrajahu al-bukhari wa muslim muné ne kon nag yonent bi defal nañu discours ci bisab tabaski muné gannaaw bañ julé ba paré muné képp ko xamné comme niñ julé rendi comme nuñ jot na sunna képp ko xamné nga rendi ñëk julli ya pour nga xam waaye amoo tabaski kon la ci téggo hadith bu bukhari ko wax muslim su ko défé timit nak dañu bëgg kon na imam rendi nga door di rendi bëgg nañ timit boy rendi nga rendi ko sa bop li ngay rendi nga rendi ko sa bop kooku moy ki gën a matal soo ni néegu rendi nak jëlal sa loxo nga tek ko ci loxol kay rendi rek mu melni yaay rendi kon loolu lañ bëgg su ko defee kon bëgg nañ euh buñ xeyé ci bisab tabaski bi bu kenn lek bu naan nañu sangu comme ni ñuy janaba sol yere yu bes loolu lañ ca bëgg su ko defee nag yere yu bes ya dal. yere buñ ko gurek rek bes na buñ ko fóotee benn yoon mbaa ñaar bes na waaye boo bëggee xew wu ne ak yere yu bees nag dafay metti loolu kenn mënu ko yere yu màgget màgget ak màgget moom daal ak fi ne bes daal feeg ma ngay man sa rek bes na loolu rek mooy bees waaye ne rek feeg sootaguñ ko wala feeg euh, kenn solagut ko rek déedéet di loolu kenn mënu ko di kenn mënu ko di te yàlla du toggale luñ mënut waaye daal feeg yéree daal boo ko solee kenn du la joxañ rek bees na otteekuhut ñu daax ko côté bu ne yére yu mel noonu lañ bëgg nga dem julli ko gannaaw bi nga sangoo nga tuuroo parfum soppi sa gémmañ gi bam set wecc nga sol sa yére sañ sa tuuroo parfum ba bul lekk gum bul naan a gum commencé di kabaar ba ba nga yegg ci julleekaay ba allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah allahu akbar allahu alhamdu riwaayaat yu benn benn la ci boobu la Maalik tànn yu bëree bëri am na ñu tànn allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila moom ngay wax feek ba ngay ba ngay yeggee ci ba boo yeggee su fekkee jàkka la wala jumaa julil ñaari rakka nga nuyu jàkka su fekkee bayal la toogal bul ngay wax allahu akbar fek bay iliman bi ñewé bu iliman ñewé na juk lu kabar su ko defé gaawee kabar ci kabaram ya juroom ñaari kabar bo ci bol takbiratul ihram do ra jang fatiha ku sar, bu paré mu togaat jugaat nak juroom benn kabar bo ci bolé kabara juk ba mu jang fatiha ku sar, ruko sujud taaya taxaw nak wan qibla bi gannaaw jakarlo nit ñi té lu melni aw dokku commencé nak def khutba ga bu paré mu wax ko ci arab bu paré mu tekki ko ci langue won nit ña dégg na ko jarul guddal na seet lay actualité ba rek mu wax ca xewi nit ña gannaaw bi mu rendé ba gaay gis ko bo wax ne kat ku ñibi man nga rendi su boba tim ñom ñi rendi waye ma mom yo xamne sen seen iliman ci amul tabaski ñoom tamit sagam nañ ci baye yépp waxtom yi di jité ku len ko xar ngeen dimbalé ko mu mëna rendi bu ko defee timit loola mo gëna rafet waye nag iliman ju amul tubaski dal gàcce gu magam a mag la nag ca maamoom ya ñoo ko ca war a bu baax a baax ta nak halal yi def di ca dimbale kamkami borom xam-xam yi lo xam xam solo la rawat na ñu néew doole ñooña su ko defé nak rendina mamum ya su ko defé bu ñu timit buñ jël gatt ba di ca joto ci dara rendil mamam bi ma jox la der bi rendil ma ma jox la ca yap lepp daganut yow daa mën nga koo fayee ci sa poos wala nga fayee ko leneen lu wuutee ca biiram tabaski ma yooya lañ bëgg su ko defee tamit kon bu ngeen julee ba pare jaar leen weneen yoon wuuteeg lu ngeen dikkee woon bu ko defee ñooña seede leen yooya tamit ñooña seet leen bu njëkk politique la woon rek wane ne julli ji bërit ñen xatte ba euh, sabab ba jóge ko fa xatte ba des fa ba pare xatte ba des fa ba tey bu ko defee nag euh, mbedd ma nga jaaroon tepp suuf yépp dañ la seede yowmal qiyam ñaanal la hiw fi nga jaaraat timit noona loolu timit lu baax a baax la su ngeen ni rendi na ngeen rafetal rendi ga su fekkee da ngay tëbaski sa yaay di tëbaski sa baay tëbaski waay waay boo rendee gàtt ba ba pare nëbbal meneen ma moromam ma waaye nag di rendi kii di ko gis ngay rendi meneen moromam gis ko ak deret ja loola rafetul ndax dee kenn ñi hut ko su fekkoon ne amoon nañ tànk yu dawee dañ daw de yonent bi dafa daan wax ne ida qataltum inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in fa ida qataltum fa axsinu alqitlata wa ida sabixtum fa axsinu dibxata wal yuxaddi ahadukum safratahu wal yurix sabixatahu xadis la imaam muslim moo ko génne yonentu bi ne yàlla dafa bind rafetal ci lépp lëf waaye waaye su ngeen ñu namee rendi wala ngeen ramma ray na ngeen rafetal rendi gaa loolu daal la yàlla bëgg rafetal ga nag bokk na ci na paaka ba ñaw rafetal ga bokku na ca boy rendi gatt bu ko moromam ma gis bu mu gis sax deret ya gën ko rendé waye juroomi gatt ci mennam place mennam pax kenn ku nekk nga rendi moromam mu gis ko rafetut l'islam santane hut lola su ko kon boy rendi waxal bismillah mom la alquran ne alayha sawafa su ko boy tabaski yow mi tabaski bu ci jublu rew sama xar may rëy nga koy fudde naka jatanka asi xarloo cay xeewee ceen di tiitaru rek jëru ko yàlla nee na deret yàpp wa ak deret ja dara jot ci wut ci man def gi ngeen ko def fekk maa leen ko sant ngeen def ko ngir sàkku sama yool moom ak ñor lan yanaala llaaha laxumuha wala dimaa'uha walaakin yanaalu taqwa minkum kon loolu rek moo ci am solo taqwa ji rek moo ci am solo soo dee ba pare bëgg na nga xaaj ko ñetti xaaj xaaj benn bi nga jox ko sa njaboot benn bi sa dëkkandoor yi benn bi say xarit yi kuréel yëpp nga dimbali leen ci jox leen ci te yàlla rek a tax su ko defee kon yi yëpp bëgg nañ ko yooyu nag buñ koy wax rawat na bu fekkee ñoom tabaski wuñ waaye bu ñëpp tabaskee nag loo ca maye rek doy na ah kon nag reen yi tabaski baax na wal budna jaalnaaha lakum min sha'airillah lakum fiha xayrun faskuru smallahi alayha sawaafa kon yooyu yëpp nañ ko def fa ida wajabat junubuha fa kullu minha wa atimul qaania wal mu'tara loolu la alquran wax kon nañ koy bàyyi xel bu ñu fayee ca gàtt ba dara buñ ca jaay dara buñ ko bokkaate bokkaate gi tamit ma joxe trente mille nga joxe trente mille ñu bokk tabaski xaraam na waaye bokkaate nag jëndal suñu bàyyi tabaski dara nekku ci mën naa joxe trente mille doom laa manuma lépp nga joxe trente mille ñu bokk ko jëlal ko suñu bàyyi dara newu ca mbaa ñu bokk jëlal ko suñu yaay dara newu ca waaye buñ ko bokkee nag ci cotiser kooka ah, xaraam na su ko defee nag su fekkee kenn am na rendi moom kenn xéena ci ndeyam ak baayam ci sartaab su fekkee ñoo bokk dëkk jege ñaale tamit nekk fa takk ngay tabaskil di bokk ak moom yaa yenu fere maam ñett yooyu la xalil wax ne mooy sarta ya mooy maanaam mu musaakana foog mu xam muy dëkkaale ga xaraabatu muy jege ñaale ga foog mu am al mu uunatu tamit xamdul mu uuna mooy xenu fere maagu ki nga koy yóbbuwaale tamit faw mu am bu yooyu yëpp xamee nag mën ngeen a bokkaate soo nekkee bitim réew sa mbokk yi nekk file te yow yow yaa am xar yaa nga foofa ah kon rendil ko yow la war warul sañoo sa sa waajur soo amee ñaar yu ne leen benn ba yow nga rendi benn ba foofa waaye nag yow yaa xam te yaa nga fële bokk leen dëkk sa menn xar ma mënu leen saa yóbbu. wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.